fi réew mi toll tey dafa mel ne da ngaa xamul li nga wax soo nee ñi fi ne ki ci tane ci moom la ñuy mën a féete faaw nu féete fenn ki ci tane mooy kan mooy ki yàlla araamal riba ci suuratul baqara araamal sàngara ak loterie ci pay mi ak pay mi ci suuratul maida mu daganal ko kooku mooy ki tane moom ngay bëgg a àndali foo koy teg ki tane mooy kan mooy ki taxaw ne l'islam du taxaw ci Sénégal am public moom ngay àndal foo koy teg tegul fen li nga ne it lekk ba suur naan ba mànd di wax ay texte da ngeen a laaj engagement islam ak engagement politique ñu war leen ko leeral war caa tegit ginnaaw politique bii baaxul bii baax mooy ban moo tax ñu indi système islamique ci politique su booba waru garu nag taxawal politique bu islamique bul jàpp ne kenn jiit na la ca ba tax nga defee ne yow am nga droit dem ci beneen parti bu weddi yàlla di fa xaar ba islam taxaw amuloo ci droit en tant que jullit dem dem ngay wax dëgg la ci yow maa ngi lay xamal itam ne sa constitution moo wax ne parti islamique du taxaw ci réew mi kon nag amuloo fenn foo mën a wér la ngay wax nan bokk tuub nun ñëpp jébbalu ci yàlla xam ne ci caaxaan la ñu nekk ci tappale la ñu nekk li yàlla santaane nekk nu ci nit dellu gannaaw jaar ci yoon yàlla mooy dëgg gi li gis lépp ay caaxaan dong
maa ngi jàngale fii ci Sénégal yi maa ngi nekkee benn membre société boo xam ne dafa juddu lu yàggul ci ci seen wet bu ndudd gi ne association boobu mooy benn société boo xam ne nguur bi nangul na ko ngeen boobu maa ngi leen di yegal ne seen réew bi réew jullit la ñu góorgóor ci islam ñii forme société bi fii la ñu jëlee xalaat islam xalaat islam bu ñu yóbbu boobu fii la ñu ko jëlee ci seen loxo maa ngi leen di ñaan yàlla ñaanal yàlla yàlla yàlla suñu yootaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
damay tënk rek li mu doon laaj léegi pour mbokk mi li ci gën a am importance mi ngi aju ci feebar boobu mu tudd mi ngi laaj ndax jullit bi rek ñooy ñi ko sabab wala état bi rek mooy ki ko sabab. wala ñoom ñaar ñoo bokk ànd jàppalante ci sabab feebar bi mu ko dee faj fu ñuy tàmbale ñaareel bi ci wàllu jigéen ñi nee na ci xoolanteeg ñoom bi conférence bi doon wax jàkkaarloog ñoom nee na feebar boobu buñ ko tuddee mel na ni tànt bi mucc ci parce que jigéenam fi léegi feebar boobu nga xam ne fii ci tànt bi am na fi buñ ko dee faj nuñ koy faj
assalaamu alaykum feebar yu bari yi ci réew mi kan mooy responsable képp ku sax bopp ci Sénégal di jullit am fukki at ak juróom jëm kaw am nga sa wàll ci responsabilité bi am nga sa wàll ci responsabilité bi peuple bi am nañu responsabilité gouvernement bi am na responsabilité am na benn mbokk bu ma doon wax ne diw moom député la nee na dana fi ñëw xaw ma lan lan lan lan wan daal dafa kontaan dafa am xéwal gu bees mën a ko xee moom bi li ko dal xamu nattu bu rëy a ko dal jiite jaami jaamur yoo xam ne seenub sang da leen a rëdd lu yoon yow jàngoo yoon woo xamoo fu féete ngay toog di wate ay projet de loi yu nga xam ne yàlla tëral la ca ba pare Seydina Muhammad wax na ca ba pare boobu responsabilité rëy na lool wow yet ku mu dal ci sa kaw da ngaa al li nga xam ne moo fi am ci ay feebar kenn ku nekk ci Sénégal am nga ci ci bakkaar lu toll ne li nga man ci changement te defoo li ko tàmbalee ci ki jiite réew mi teg ci armée bi ministres yi députés yi hauts fonctionnaires yi ba ci suuf ba ci ki sànni woon ki defoon simple sànni wenn carte barki démboo njaay la ay élection am kenn ku ne génne say doole am forage dispensaire wàññi ceeb kenn newul islam kenn newul islam su fekkoon ne sama wenn carte wii lay xam naa ne bu dee moom dong du la tax a falu du la tee falu waaye nag li muy ñàkk ñàkk solo day du ma la ko jox mukk te du danga may warul ak mbilit ndax man bëgg naa ndox bëgg naa faju bëgg naa bien matériel waaye dama bëgg nekk jullit dëkk su fekkee warlul nga mën a sa programme parti ci islam lay daal ma jox la sama carte yi soo ko mënta warlu xamal ne sañu ma laa jox carte yi ndax moom ma ko yàllaa ko moom individu bu ne ci Sénégal bu waxoon loolu li ñuy tawat lépp de kenn waxu ko du kenn kon nag gouvernement bi demul peuple bi def ñun ñëpp a ko bokk kenn ku nekk yaa ngi ci toor kenn ku nekk yaa ngi ci toor kon boog responsabilité bi mbokk mi na nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk nan lañ koy fajee dellu ci yàllaa ko yonentam tuub dellu ci lislaam xale yu ndaw yi ci sama kanam doon ko ci ñaan def benn question ci maanaam nu ñu koy fayee ñu bëgg responsabilité kenn ku ci nekk loo ci mën a pour mu gën a leer ko maanaam ci ni ñu koy fajee parce que dina gën a yitteel nit ñi ñoom responsabilité nga tudd nga ci gën a mën a préciser
waaw maanaam bu fekkee ne bi danoo waxante dëgg rek dañuy seet ba xam ndax feder bu dem na wala demul feder bu kat dafa installé woon ndar indi armée rouge génne Albury rey Lat Joor xeex ak Maba Jaxu génne maam Ahmad Bamba radiallahu anhu jamian feder bu ak ña ko fi jiitu ak ñim fi jiitu su fekkee dem nañu dëgg la su fekkee li ma dégg ñu ne déggoon ñëw na fi ba jox na indépendance dëgg la kon nun jullit ñi ñoo dugal suñu bopp ci kéefër kenn forcé tunu su fekkee ba léegi feder bu demagul dafay nekk ku yatam dégg naa dafa amoon jàkka ju nga xam ne ji dañoo kàbbar ba julli baru ko benn dof dugg faak yadu rëy yadu rëy waa jàkka ji ko mu agsi rek ne ku sëgg dee ku siggi dee ah ku sëgg dee ku siggi dee loolu benn kiimaan naka pexe gaa yi ne fa yàgg nga rek ci rukkoo ba rukkoo bi yàgg lool dof bi bëngéer ba mu neex ko mu dem yoonam gaa yi doore mottali seenu julli su fekkee lool la su fekkee feder bu dafa demagul ñu seet ba xam dañuy continuer ci rukkoo bi am dañuy jóg dee loolu rek la su fekkee feder bu dem na nag ah ala kulli xaalin ala kulli xaalin xale bu nekk xale bu nekk na dogu ci ndegam dañoo bëgg feebar yi faj faju xale bu nekk na dogu ci jéem a xam diineem jéem a wut ku ko ko xamal te xamal ko ko ci fànn yépp ni muy xame julli dinu xame koor mu xame ne système islamique système économique ci politique te bañ a sóobu rek ci kaw ay sentiment ak ci kaw bëgg intérêt personnel bu teew wala bëgg a contre nguur tax mu jóg di def ay jëf yu nga xam ne kenn xamul fu muy teg jaarul fenn loolu bokkut ak li war a am li war a am mooy xale bu ne jàng diineem ba xam ko mag mu ne jàng diineem ba xam ko góor gu ne jàng diineem ba xam ko jigéen ji ne kenn ku ne tàmbaleeg sa bopp dogu ci yaru ci islam yar ci sa njaboot bu yàlla dogale ngeen xam ne feler bu demul nu xam ne demul bu demee nu ñaan ndem na moom suñu bopp wax ku nu ñaan ñu ñaan ba ne ñun de wax dëgg ay juddal la su ko defee am maa nag fan lañ koy tàmbale ci pas-pas yi la ñu war a tàmbale islam boo koy liggéey ci pas-pas yi ngay tàmbale ndaxte sama mbokk mii léegi yaakaar na ne moom mën naa nekk jullit waaye parti fi nekk benn baaxu si waaye na seen bu si gën a jege islam boobu pas-pas wérul nan defaraat pas-pas yi yépp pas-pas yi politique yu yàq yi pas-pas yi pas-pas yi yàqu ci tawxid tawxidul uluhiya tawxidul rububiya tawxidul ibada maanaam wéetal yàlla ci ne moom rek moom la ñu war a jaamu moom rek la ñu war a ragal moom rek la ñu war a xemmeem moom dong moo nuy dundal moo nuy rey wéetal ko ci ne moom dong moo nuy jëriñ moo nuy lor wéetal ko ci ne moom dong moo war a tëral ay atte wéetal ko ci di jëlee ay valeur ci moom kese su ko defee nag ngeen sant sëñ Ahmed Babou man ab mbaakol mbaakol laa maa ngi ca bourse ba du ma dellu si mukk te dellu la gannaaw ci li ngeen nekk damaa daw te du ma dellu si ci dellu la gannaaw ci li ngeen nekk man yaxaw ma ko ndakaaru gi mënuma fee am ñetti fan su ma génnee xool lu xaraam su ma dégloo dégg lu xaraam su ma làmbee daj lu xaraam dëkk ba ma dëkk muy Fass Touré bi may ñëw laay wax ki ma àndal naan ko su ma mënoon damay ñojj li ba ca àll ba sama tool bu ñuy wax las ma dëkk fa du ma jël si ndakaaru mukk te ngeen mel ni ngeen mel waaye wax naa ko ba noppi wax naa ko ba noppi Serigne Babo ngi fi def leen état généraux islamique ngeen étudier problème bi sérieusement ndax la feder bu dem na wala demul su demul lu ci sës su demee ngeen tëral plan bu mën a delloo si société islamique loolu lu ñuy seet la ay borom yi xam-xam ñooy toog seet ko waaye benn conférence benn conférence du tëb rek déterminé ko salaamaaleykum.
Abdoulaye Fall. waaw mbokk yi. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi. léegi bi ñuy tàmbali sama impression moo doon doon na gis ci man lool en tant que ñu demandé mu présider conférence bi may bàyyi conférence bi mu dem noonu ca waxtu wañ ma waxoon ne xaj na bu ci mënoon dem mu liggéey moo taxoon ñu tàmbali débat bi waaye li fi jot a rotogum gis ngeen li mu niru mooy buñ doon dem ba njëlitam nit ñi duñu doyal waaw loolu lay niru comme nag mbir mi dugal man dama leen doon ñaan rek ñu may ndokk mi débat bi ñu jox ko kàddu gu mujj gu muy wax mu wax ko ñu ñaanalante comme dafa sori am nañ yeneen yoon yu ñëw ci kanam comme ni ñu ko wax am na yeneen mbokk yu fi nekk yoo xam ne question yi ñu fi war a posé insha allah dinañ mën a continuer di ci di ci répondre te xalaat ci proposition boobu ñuy wax ñi ci war a xalaat nee na état généraux islamique nit ñi war nañ cee xalaat daanaka question yi ci posé yëpp day mel ni dafa dëppoog loolu muy wax maanaam baat bi sax dafa nekk en vogue waaye li ñu bëgg yëgle rek mooy jullit ñi war nañoo daje pour seet seen i mbir loolu moom la ci jublu ci kàddu état généraux islamique kon bu ngeen ma mayee loolu maa ngi koy delloo kàddu gi mu def baatam bu mujj ñaanal mbokk yi te ñu dem insha allah li ñu fi dégg yàlla mën na cee def barke asalaamaaleykum wa rahmatullah
alhamdulilah yal nañu yàlla may ñu dégg ko xol ak xel te yàlla may nu tawfiq nu mën koo jëfe yàlla mi nga xam ne xam na li nëbbu ak li feeñ xam na ne dara musta nekk sunu yëngutu ban tàmbalee wax ba fii nu toog lu dul jéem a leeral kàddu yàlla wutuñu ci dara kon nag yi am solo mooy kàddu yàlla bus ko déggee jéem koo jëfe moo ci def wax ju gudd aajowu ko kenn ku nekk bu demee na seet ci pexem boppam nan lay mën a def ba génn ci toor bu mu nekk nan lay mën a def ba liw war a am am ba bu ëllëgee bu nu dajee suñu borom yàlla mën a am ndam mën a mucc ci mu merenu dinu yóbbu safara mën a am xéewal mën a bokk ci ñi dem àjjana yal na nu yàlla may loolu yal na nu yàlla defal tawfiq yal na nu yàlla defal suñu diine ak suñu dunia wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon doo ngi def ñaan ñu jàng fatiha ma ñaan oustaz Babou ñaan gi nga xam ne néew na fu yonanti way néew na fu saxaaba yi toogee ba jóg te ñaanuñu ko gannaaw buñ ñaan muy allahumma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik ma ñaan oustaz Babou mu ñaan ko ba noppi tekkil nu ko ci wolof ndax nu dégg ko gannaaw fatiha ji no ta sako jotaay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ñaan googu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ñaan ci làmmiñam bu tedd wala ko yàlla jaarale jottali ko jàmm yàlla na nga nu sédd ci sag ragal loo xam ne lii dina dox sunu diggante ñuy def loo tere yàlla na nga ñu may lu nuy mën a defe jaamu yoo xam ne dina nu jottali ajjana yàlla na nga ñu may ñu am sag ngëm wóolu la ngëm goo xam ne dina mel ni danoo ne jàkk ci yow ci li ngay santaan yëpp ñu di ci teg bët wóolu gu toll ni dina tax lépp lu doon ab diis ci àddina ñu mën koo tegoo ba def yi la ne yàlla lépp loolu may ci cër bu doom aadama di jariñoo yàlla nag ñu def ñu jariñoo ko ci li la neex feet yaa ñuy bàyyi ñuy dund yàlla loolu lépp na doon loo xam ne li day def ginnaaw loo xam ne li mooy lu nuy doon ci ñun yàlla na nga ñu dimbali ba képp koo xam ne kii dafa ñuy tooñ nga may ñu ñu mën a fay ci moom fay boo xam ne bii dina génne ci xelam tooñ keneen ku du ñun ëllëg yàlla lépp loo xam ne lii mooy musiba lu mu war a dal yàlla nag ñu dimbale ba mu bañ a doon ci suñu biir diin maanaam léegi diina ji li ci yàlla santaan li ñu fi doon tudd ba ba tey ay musibay diine la jullit bu janoog benn kaddu bu ko yàlla di wax mu am lu mu ragal wala lu mu nëbët ba man ba loolu tax du mën a def loolu ko yàlla sant wala loolu ko yàlla tere loolu musiba la ci biir diine ñuy ñaan yàlla yàlla nu yàlla teggil musiba ci suñu biir diine yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla bu mu réel àddina bi ci suñu bët ba nga xam ne bii day ëpp na mu toll ci yonente bi alayhi salatu wasalam ñu ko misaale nee nañu law kanat dunya taxdilu inda allahi janaha baudatin ma saqa allahu fiha lilkafiri surbatana àddina bu toll woon ni laafu yoo bu ñu ko tegee ci balance poids ba muy pesé yàlla bu fi may ku ko weddi mu am ci kaasu ndox ba muy naan kon noonu àddina ñàkke solo ci yàlla yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla bu mu réel àddina ci suñu xol ba mu tere àgg ci yàlla yàlla ñu ngi koy ñaan ki nga xam ne kii ragalu ko moom yàlla yàlla bu ko yàlla teg ci sunu kaw ñaan googu nag dafa am lu ñuy tekki ndax yonente bi alayhi salatu wasalam moo ne bu ngeen tereetul lu bon digleetu leen lu baax yàlla dina tànn ñooñu ngeen di wax yàlla bu mu ko teg seen kaw teg ko ci seen kaw kon ñaan googu dafa ànd ak lu koy amal kon yàlla na nu yàlla may ñuy digle lu baax di tere lu bon ba yàlla bañ a teg gaa yooyu ci sunu kaw yàlla ñu ngi la ñaan yàlla nañu yàlla yërëm àddina ak alaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu